asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Cheikh Mahamadul Bachir sa taalibe sa soppe sa xarit alhaji Mbàkke yu fay ñaari entreprise yu mag yi nga xam ne mu ngi ciy liggéeyal doomu Sénégal da ci liggéeyal réew mi ci wàllu koom ak ci wàllu may doomu Sénégal ñu am fu ñu mën daane seen doole muy assurance bi ak promobile ñoo fi ñëw tey doon la ziar si ci màggal gi indi la nuyoo alhaji Mbàkke yu fay xam naa dama doon ubbi rek waaye danaa jox bi mi nga xam ne mooy directeur promobile mu gën a présenté ñi mu àndal ak waa assurance bi ñu def ko ni ñu ko doon defee woon at yi passé yëpp ñoo joxe seen addiya sa seenu taalibe feddliwaat sa diggante ak yi Mbàkke bi may xam ni àddina xam nañ seen diggante ndax Sëñ Tuubaa moo leen boole ci liggéey bu tedd bii yàgg na ci màggal gi at mu jot mu ci def ay teraanga yu am solo da ci joxe addiya am solo liggéey Masaalikul Jinaan bi nga xam ni yéen ko tàmbali yéen ko ubbi ca tàmbali ba yéen ko tàmbali woon waaye ba mu demee ba àgg it yéen yéen ñaar ànd ubbi ko lépp di ndamul Serigne Touba démb rek bi ma ko jotee nee na boo demee soo fa teewee mu maa fa teew ndax xam naa ni nga demee ak Cheikh Mahamadou Bachir waaye boole naa la sama bopp ndax li ma Serigne Bass boole yow kon maa lay jotal nuyu Alaaji Mbàkkiyu di jox directeur bi Pape Goudia bi mu présenté ñi mu àndal présenté waa assurance bi jotal addiyee ji mu ko defee ñu féexal la ndax ñu lay xaar dafa bëri te jamono ji xat na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëñ bi ñu ngi ziar di feddaliwaat suñu kóllëre di sant ndax xam na waaye boole nga ñu ci di rappeler li ñu waxoon daaw rek dañ ko def daawati géej yàgg koo def mu ñuy jig at bu ne ñu ñëwaat tey sëñ bi ànd ak waa Promobile ànd ak waa ASS assurance la sécurité sénégalaise nga xam ne ñaari entité yëpp maanaam li ma waxoon daaw laay waxaat leen alalu Sëriñ Tuubaa la ndax ki ko moom di Alaaji Mbàkke yu fay nga xam ne ci turoom lañ ñëwee fii nga xam ne mooy suñu PCA te mooy borom ñaari société yooyu yëpp ñëwaale ci turu sëñ Matar nga xam ne ñoo waroon ànd waaye tey daa daa daa daa xaw a jagati di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may wér di daloo sëñ bi di di di di ziar di wax ni que la defoon daaw mu jig ñu ren dañ ñëw defati ko ñëw indi ñëw indi adiya gi ci màggal gi ci wàccaayu màggal gi waaye waaye Mbàkke yaakaar li ma waxoon daaw yaakaar yaakaar moo ñëwaat ren daa dañ ko def daaw waaye ndaga ni daaw ba ren yokkute am na de yokkute am na ci Promovilles ba ñu yëg ko ñun di sant di dolli sant sëñ sëñ sëñ ndax ba mu méttee ñu bëgg a tàkk dañoo taxaw mag bu mag a mag a mag mag moo ñu taxaw nañu dana tàkk tàkk dox borom bu seen jot waaye tey ñi ngi ñëw di dëggal di dëggalaat ne tàkk na ba dox ba romb suñu jot mbàkk ñuy dolli sant di di sàkkuwaat ñaan ngir mu mu mu mu gën a euh, ro roppi fa mu newoon yokk te gën a dollee ndax yaakaar moo ñu indi te yaakaar tasul te yàlla bu yaakaar tas mm-hmm. ndax defoon nañ ko defati ko defati ko te dañuy jàpp ne la ca kanam moo dàq moo tax ñëwaat mbàkk di ñuy doon jaar di ñëwaat di wax ni que ASS bi nga xam ne mooy sécurité sénégalaise mooy assurance la sécurité sénégalaise def na fi 39 ans waaye assurance su Sénégal la 100 pour cent sénégalaise ay Sénégal ko moom rawatina ki ko jëlee di Alaaji yu Fay ñëpp xam sa diggante ak moom na mu mel moo tax ren dafa ne ànd leen ñaari société yëpp ngeen dem ziaral ma yéglu ñaanlu ngir ndëgën bu ñu bu ñuy demaatee ba déwén ñu roppiwaat fañ ne woon Mbàkke ñu ngi ñëw di fédéré waat kóllëre di di di di yeesal suñu ziar di ñaan di sàkku si ñaan ngi ñaari société yi roppi fa ñu ne woon roppi seen i morom ñu ràññee leen ci Sénégal te xam ne sénégalais ko moom te xam ne alalu Sëñ Tuubaa hmm. loo xam ne la yéen a ko moom ñun nag seen i taalibe lañ te te te te seen ndigal la ñuy doxee si li ñuy wëy moo ñu may ba ñu egsi ba fii ñu dolliwaat gërëm di fédéré waat kóllëre jërëjëf Mbàkke ñu ngi leen di delloo am nuyoo bu baax ci kàddu yi rafet yi nga xam ne yëkkati ngeen ko ci ndigalul seen kilifa di seen jëw jëwriñ Serigne Mbacké Faye kon ñu ngi leen di delloo am nuyoo bu baax di ko teg ci loxol yéen ñi nga xam ne yéen di njabootam yëpp ndefi te ma tàmbalee ko ci Ahmed Saloum mi nga xam ne yàlla def na maa leen boole woon ci liggéeyu màggal gi waaye mu dem ba seen diggante àgg fi mu ba mbirum boppam sax mu mu di mu di ko ci jëfloo ak njabootu boppam gi mu àndal yëpp tàmbalee ci Abdoulahat fay ak du fay mii nga xam ne ñoom ñaar sama digg ak ñoom ñoom ñëpp sama xarit ñoom ñaar ak lañu ñoom ñett ñi ñoo ci gën nekk samay nit samay waa kër ak seen posté fa ñoom ñëpp sama mbàkki moom yàlla defal na ko tawfeex njabootam gépp xiirtal leen ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa waaye soo gisee koo ci gisee jàpp ne moo ëpp posté moroom di nuyu Abdou Khadir mii di jarbaatam itam te taxawal ko lu bari ci ay liggéeyam moom itam posté foofu rek moo de ci moom di nuyu kii yëkkati seen kàddu te jiite liggéey bi bu jaabi ak mboole ñi ci des ñëpp bàyyiwuma kenn dinañ yëbbante nuyoo ci Serigne Bakio rawatina ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def muy liggéey boo xam ne la ci ëpp solo mooy misaal mi muy mi muy wane mooy boole jàmm yàlla ak liggéey Serigne Touba ak liggéey. ndax yoonu murit loolu mooy li ko fonde mooy nangoo jaamu yàlla ba mel ne eh, suba ngay faatu ëllëg ka annaka te moodu xadaa waaye dangay ngay liggéey ba mel ne taishu ka annaka taishu abada da nga mel ne koo xam ne dangay ngay dund bu faw kon lii itam jàpp na ne misaal mu rëy la moo xam ne da koy wane ñu bari war ko ci roy mooy fi mu toll ci at ak fi mu jaar ci addunaam dem ba yàlla suñ borom defal ko ndimbal defal ko taw feex ba mu ko ne bu toogoon bañ a génn këram itam Sëriñ Tuubaa dina ko suturaal waaye mu gën a laxasaay waaye di gën a liggéey loolu misaal bu rëy la kon nag bu ngeen demee ne ko ñu ngi koy jotlaatu cant ak ngërëm te la ci ëpp mooy liggéey bi muy liggéey Sëriñ Tuubaa ak bëgg gi mu bëgg Sëriñ Tuubaa doy na ko sëkk te Sëriñ bi muy lim Tuubaa li abdil muridin saadiqin lahum bi xidmatin aw bi xubbin bi xidmatin aw bi xubbin kon bokk na ci ëpp doole te moom koo ko xam ku ne ku ko xam ku ne xam nga ne liggéeyal Serigne Touba mooy yitteem amul benn yitte bu dul moom ci lay xëy ci lay gont day dem ba liggéeyu boppam sax du ko dal Serigne Touba nag képp koo xam ne bàyyi nga sa bopp ne ci moom mu wut la si jëm comme na ko waxee woon kon nag da ngeen ñu koy yeesaalal suñu cant ak suñu gërëm yaa ko waxtu ne ñu koy ñaanal fu ñu toll. te ñaan gi ëpp solo sax mooy Cheikh mu Mountakha mi fi nekk Sëriñ Tuubaa mu ngi koy ñaanal waxtu ne ndax yéeneem ak taxawaayam daaw seeral na ko ne mbàkk yu de bu mënoon dajale li ci àdduna si lépp liggéeyal ko Sëriñ Tuubaa dama ko def loolu nag kenn mënu ko weesu seeral na ko it ne ko làq nga loolu kon amut luñ ko mën a gën a waxaat lépp loolu kon ñu ngi ko ñaanalal bu baax yàlla suñu doom gën koo kàttanal kër gi mu ubbi itam yéen yëpp ngeen di ci liggéey. ngir di ci sàkku kasbul xelal li nga xam di lislaam ko santaane yàlla ko suñu doom gën a barkeel mu bokk ci kër yi jiitu ci Sénégal ndax lu mu ci jëfal ci réew mi lay delluwaat lu mu ci amit ci islam ji lay dellu lu mu ci amit ci yoon murid lay dellu kon ñu ngi koy santaan bu baax di ko ñaaral balaa na gën a demee jàmm yàlla dem ba romb fii mu toll weesu ko ay yoon yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala